salut salut mes amis j'espère que vous allez très bien ñuy nuyu suñ mbokk internet yëpp tey nag waa Yelli TV dañoo ñëwaatoon indi leen yeneen i xeetu baax baax pour góor ñi góor ñi nga xam ne dañuy gaaw a yëg seen bopp bu ñu yëgee si kaw bi balaa ngaa ne xaas nii ñu pare si xam nga loolu moom neexut mais avant tout d'abord balaa ñoo dem si explication bi da ngeen di abonné wu bës kolos vidéo bu ñu mënti dugal ngeen am ko automatiquement tey nag dañoo ñëwoon pour góor ñi de góor ñeen ñu tax a jóg tey pour kër gi neex waa góor ñi nag xam nga souvent am na góor ñoo xam ne dañuy yaaw a yëg seen bopp bu ñu yéegee ci kaw lal même pas trente secondes ñu pare si xam nga loolu tamit neexut te jëmut kër ba tax ñu indi doon leen solution boo xam ne c'est très efficace da ngay jënd benn nen waxuñ leen ñaari nen waxuñ leen ñetti nen benn nen ngay jënd nga toj ko jaune bëf bi nga génne ko tegee ko nee soxlawuñ jaune bëf bi blanc bi lañ soxla nga def ko ci kaasu vert boo ko defee ci kaasu kaasu vert ba pare nga jënd nga ut ñaari doomu limon nga dagg ko dindi xoox yépp ba mu set nga nal ko ci kaasu vert bi nga ut benn kuddu lem bu ndaw kuddu lem bu ndaw lañ leen wax waxuñ leen bu mag kuddu lem bu ndaw ngay ut nga mélanger ko encore ci kaasu vert bi nga jaxase ko nga naan ko avant quinze minutes avant quinze minutes nga door a tëdd boo ko tëddee di ngeen gis boo leen ko defee dingeen gis di ma leen wax te di ngeen gis affaire bi changé lépp changé daal kër gi neex jigéen ñi kontaan parce que ñun nag wax dëgg neex yàlla loolu dafa bokk si li ñuy bégal ba tax na di leen indi ay solution rek pour góor ñi ndax ñun tamit góor ñi ci lañ bokk waaw bu leen fàtte nag abonné wu bës kolos vidéo buñ mënti dugal ngeen am lépp merci mes amis à bientôt bye